gannaaw bu ñu ëpp ci ñoom daal di fekk see xeex bi kàddu yu njëkk yu Aliou Sané gannaaw bi mu génnee kaso njiitu Y'en a marre tey la gën a dogu ci xeexal kan wi ak gën a euh, feddewaat ne deful lu jaroon ñu yóbbu ko kaso Aliou Sané di sakku tam euh, Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñu daal di leen di bàyyi euh, mu muy nag feem bu bees bu président Macky Sall jugte bi yoon muy daje kilifa yi benn benn au mu leen di dajale ñoom ñëpp ci daje waxtaan ak ñoom ana mën a jur euh, tontu li ci gëstu Mouhamed Alioune Ba euh, tàggat yaram bi ci soccer footballu tefes Sénégal di joué match de qualification tey ci ngoon ci coupe du monde bi euh, suñu gaynde yi de fokk ñu door Japon ngir mën a jàll daañu jeexale gis-gis ñuy waxtaane tey fajal sa bopp gi am léegi ci réew mi li si mujj mooy benn waaye bu ñu door ba mu faatu ci Ziguinchor ndax dañu ne sàcc la mu nekk li gën a fas ci xibaar yi ne su lu ne ci ay faram-fàcc Elhadj Ndiogou Diène Maysa Mbaye moo nekk ci machine bi mbokkee ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias ministre de la justice soxna Sidi Aïssata Tall Sall war a joon ak taskatu xibaar yi tey ci ngoon moom nag mu nar a addu ci li nga xamante ne moo gën a fas ci wàllum justice jamono ji muy nag ay bàyyi goo xamante ne ñu ngi koy bàyyi ay nit ñu bëri gannaaw bi nga xamante ne njug nguur gi daal dafa jugte ngir nag jàmm ak dal daal di am ci réew mi di ñàkk tam waxte mbirum loi d'amnistie bi nga xamante ne ñu ngi koy lam lam-laame fan yi lépp jëm ci nag fexe eh, ba juboo ak dal daal di am ci réew mu Sénégal eh, mu fekk jamono jooju nag ñi nga xam ne ñoom lañ tej ci kaso bu Ziguinchor di amal seen ñaareelu fanu xiifal loolu naka li ko waral mooy nag ngir sàkku eh, ñu daal di leen di atte wala ñu daal di leen di bàyyi ñam na sax yeneen ñeent fukki nit ñoo xam te dugg nañ ci xeex bi di jàppale seen moroom yi nga xam ne ñoom démb ba léegi ñu ngi woon ci xiifal googule des nekkoon ci kaso yi génn bu yàggul dara semaine bi ñu génn muy nag yu Sané njiitu Y'en a marre nekk tam vice coordonnateur bu F24 moom nag nee na li ñu ko jàppe woon dara du ci yoon tax sax tey la gën a dogu ci xeex bi ci geneen wàll moom yu sànne gis na nag Ousmane Sonko ak Bassirou jomal Faye ñoom tamit mérito nañu ñu daal di leen di bàyyi ñu génn kaso dañu koy teewlu moom yu Sané. dañ ko vivre avec beaucoup de dignité génn nañu. yan condition la Euh, man xaw ma woon euh, dañ ñëw rek fekk ma ma toog ñu ne ma Aliou Sané euh, da ngay génn libre nga bi ma demee ci greffe prison bi laa demandé ci yan condition lañ ma libéré ndax man dama jàppoon ni tout sauf amnistie loi d'amnistie boobu duñ ko jaaralee ci ñun donc ci lañ ma ne nii non non liberté provisoire d'office la alors que boo xoolee ci ginnaaw sama avocat mu ngi déposé woon benn demande de liberté provisoire ba chambre d'accusation bàyyi ma waaye procureur teg ci tànk bëri ñu jàppoon ci ay manifestation waaye Ousmane sonk euh, mu ngi ci kaso ba léegi naka noonu tam Bassirou Diomaye Faye lu jëm ci Ousmane Sonko sax ñu ngi wax ne jamono ji ay waxtaan mi ngi dox digganteem président Macky Sall ngeen mu daal di génn kaso euh, ba njàngat ngay def euh, ci lu ni mel. li may njëkk a wax mooy dëgg la Ousmane sonk ak Bassirou Diomaye waaye. am na ay doomi Sénégal yu bëri yi nga xamante ni ay anonyme lañu boobu ba tey ñu ngi ci kaso yi Bassirou Diomaye Faye c'est un candidat euh, qui doit aller campagne sénégalais yi yëpp jàpp nañ ne war na mën a génn dem wax ak sénégalais yi comme tous les autres candidats et puis euh, monsieur Ousmane Sonko tamit bi nga xamante ni leaderu opposition bi la tey nit ñu bàyyee bàyyi doomu Sénégal yi bëri ci dynamique bi nga xamante ni président Macky Sall moom la engagé nee na ci apaisement war nañ ko mën a bàyyi nit ñi di këram. bàyyi boobu est-ce que war a négocier teg ko ci ay sart yu def lii damay def lii euh, pour génn kaso la est-ce que loolu ànd nga ci. non déjà ce qu'il faut dire et moi je l'assume clairement euh, tey ñu bëri ci sénégalais yi nga xamante ni daan nañu am lu ñuy laam-laame ci mbirum Ousmane Sonko ak acharnement bi nga xamante ni régime Macky Sall teg na ko ci kawam pour que mu bañ a dem élection pour que ñu mun ko teg kaso loolu tey leer na ci boppu sénégalais yi. mu nekkoon euh, Aliou Sané njiitu euh, mouvement Y en a marre nekk tam ñaareel njiitu F24 daa ngeen ko dégg ci ni mu gën a euh, mooy nekk suñu gan tey ci RFM soir guddi wax ba léegi lu soxal wàllum élection présidentielle yi ak miiti réew mi président Macky Sall jamono ji nag di gise kay kilifa di waxtaan ak ñoom wute nag ak li mu daan mu di gis di ñëpp xam te ne dañuy sëmbaxloo ñëw toog waxtaan bi yoon fem bu bees bees lay jël di ne nag ku ci nekk day toog ak yow waxtaan loolu ana sa la sa cee mën a xaar ak lu mën a jur ni ngëneel dañ ciy déglu gëstu Mouhamed Ali mu baax. buñ sukkandikoo ci journaliste bi di Assane Samb boo xoolee bu baax Macky Sall concertation la nekk di privilégié ndaxte calendrier électoral bi mayu ko mu def dialogue politique. boo dee concertation dangay ngay diglu ñëpp soo digloo ñëpp ba pare euh, nga xool yow sa bopp lag ngay décider. Euh, yaakaar naa yëgoo la euh, yëgoo boobu euh, mooy gën ndax amuñu jot ndax ndax daf ko bëgg a def si 48 heures 48 heures ndaw na su fekkee dialogue la day mel ni conférence nationale day jël temps et day am terme de référence mën na yàq li nga xamante ni mooy processus électoral bi ñu bañ a respecté li nga xam ni conseil constitutionnel décidé na ko. Euh, boo defee nag ay concertation dina la may nga déglu ñëpp xam ban date ngay jël xam également nan ngay taxawee est-ce que da ngay reprendre processus bi yëpp comme ni ko ñenn ñu bëggee wala boog da ngay yem ci interprétation bu gën a ndaw maanaam jël candidat yi fi nekkoon rek ànd ak ñoom organiser élection yi ñaar yooyu nag euh, pour nga mën a xam nan ngay taxawee parce que décision constitutionnelle bi dafa xaw a lëndëm ci yenn côté leerul dafa ubbeeku Euh, léegi nag il faut que ñu déglu acteurs yi jël décision bi nga xam ne moo gën. journaliste bi di Babacar Dione ne loolu am na waaye boo xoolee bu baax apparence la ndaxte consultation yi day débouché ci dialogue politique. parce que niru na ni man nekkul choix wu date rek moo ko intéressé ndax niruwu ko bu fekkoon choix wu date rek la. am na position yëpp. pour mën a trancher tànn li ko li ko neex. waaye lii muy def nii wane na ni ah. bëgg na mbir mi ndax di gën a yaatu. dialogue politique pourquoi faire alors que conseil constitutionnel jot na publier liste ñi war a dem élection Babacar Dione jàpp ni Macky Sall daa bëgg a gagné temps tuuti ngir dëppaat carte yi. juriste yu bëri nee nañu ñi si gën a xarañ it nee nañu soxlawul di ko def léegi donc mën na ko def après le 2 avril kon boog loolu mën na dem waaye nag man li may jaaxal mooy waxtaan pour élection yi ba njariñ la war a am bu fekkee président Macky Sall. dafa war a dafa war a tànn ndax rek parce que conseil constitutionnel may ko leneen mu def mu def leneen kon kon foofu kon man euh, mën naa njott ni peut-être que xanaa dafa bëgg yokk leneen ci li conseil constitutionnel wax wala def leneen est-ce que am na ay possibilité def leneen loolu man gisaguma ko waaye waxtaan bu yàggee nii loolu rek lay lay lay wundu loolu daal lay xeeñ. fu mu toll nii Sénégal ñaari tees ñooy affronté wu ñi bëgg dem élection avant le 2 avril. ak list bi conseil constitutionnel jot a publier ak ñi bëgg ñu reprendre processus bi PDS ak candidat spoliés yi bokk ci. Mouhamed Alioune wax candidat yi nga xamante ne nag ñoo bokk ci list bi conseil constitutionnel génne ñenn ci ñoom nag ñoom ñu ngi wéy di campagne di dugg ci réew mi waxtaan ak ñoom donte sax feem yi ñu koy defee wute na Fama Ndione dem ci biir kër yi séddale ay nataal yu am seenu candidat coalition Diomaye président tàmbali campagne bi guddik ñetti fan jàpp ñeenti fan ci weer wi ñu ne buñ sukkandikoo ci mandataire ba liñ leen joxe fichier bi jox na leen dëgg Amadou Ba. ñun liñ doon def loolu la yoon tëral ndaxte yoon dafa loi bi nga xam ni député yi voté nañ ko pour dàq élection ñun bañ ko yóbboo conseil constitutionnel ni ko na ko saytu yoon dafa ni loi boobu dootul ñu ko ab du tax ngeen ngeen ngeen taxawal li doon def fi mu toll nii daara terew ñu loi xam ni moom moo ni moom cellule yi nga xamante ne ñu nekk ci quartier yi ci la lalu daal di jox li nga xamante ni ñoo di programme candidat bi ñoom nag dañuy dem ci kër yi di waxtaanee eh, kan mooy Aliou Mamadou Dia ak yenn bi mu am ci réew mi sa Mbengue mooy directeur campagne adjoint bu PUR. dañu gisee ne li nga xam ne moom moo tax processus électoral bi taxaw. dañu xam ne loolu noonu tegu ko ci yoon. assemblée tam dama voté ab loi boo xam ne ñun xam ci yoon te comme nag réew mi ci yoon lay dox bañ demee ci conseil constitutionnel pour wax leen leen liñ ñuy def teguñ ko ci yoon dañ woon xam nañ ne yàgg-yàgg ñooy am dëgg ñu ne nag kon bu ñu dara bett nañu continuer suñu liggéey ñu ne kon nag suñu cellule de base yi suñu comité électoraux yi nañ continuer liggéey bi te mooy def suñu ay VA des visites bu dee ni coalition Diomaye président ak waa PUR ñoo bokk stratégie la ñu jël day daral ay nit këram ba noppi nag dugg ci réseaux sociaux yi bu ma lay boo waxee dëgg mooy candidat yëpp ngi maintenant kenn ku ci nekk daa am ni nga koy defee am na ñoo xam ne ñi dañ ciy boole folklore dem ci yoo xam ne ñii ñoo ngi toog fi ñu toog di massifier di dem seeti nit ñi ci ci kër yi ak parce que eh, électorat bi euh, bu fekkente ne ñu campagne mooy fexe ba yokk mbooloo moo xam ne mii dana ànd ak yow mooy nga dem seeti leen wala nga recevoir ay groupe bien constitué yore seen carte électeur à partir d'aujourd'hui am bees bu may tàmbali déjà dans les réseaux sociaux à partir de vingt et une heures def euh, waxtaan ak Sénégal yi mu tuddee ko diisoo naam sax présidentielle bi dax nañ ko ba jëmi jamono terewul ay candidats ñu ngi tàmbali seen campagne boobu ba léegi ñenn ñi nag di waa Jomaay président ñi ngi ñaawlu li leen way takk der yi di xoxatal ak sànni gaz lacrymogène fépp fu ñu jaar. Fama John euh, une heure tegal fukki minute ak euh, ñaar euh, ca Tukulóor ak Mbayeen nekk ci Poul. ak RFM kumpa jeex na. wéy ci xibaar yi wax ci leneen ñi nga xam ne ñooy euh, boroom camion mbalit yi ñoom jamono ji euh, ndànk-ndànk ñi ngi tàmbaliwaat euh, liggéey bi def service minimum li ko waral moo di ne daje buñu amal ak directeur général du trésor xam ne ne nag bor bi ñu leen yoreel daañu ko fay benn genn wàll ci bor boobu kon daañu ko fay tey jii beneen bi nag semaine bi di ñëw lañ leen wax tax ba ñoom nag ñuy nag yolomal ci xeex bi nga xam te sumb nañ ko démb ba léegi général mbootaay gi ëmboog borom camion mbalit yi ci jokkoom ak umu kalsum li bi ñuy taxawalee suñuy oto démb sax tey nañu nañ genn conférence de presse bi ñu koy pare directeur généralu trésor woote woon na pour recevoir ñu ñu yebal fa benn délégation en présence wu directeur généralu SONAGED ñu waxtaan ba trouver ay point d'accord loolu moo waral sax tey jii xëy na ñuy assurer waar service minimum bi libérer quelque su suñu ay camion pour que ñu bañ dëkk bi yàqu ñu continuer di surveiller processus bi ndax effectivement dina am matériel matérialisation wu accord yooyu nga xam ne am nañ ko depuis démb directeur bi déjà jël na ay engagement ferme yoo xam ne par rapport ak bor bi ay avance dinañ ko ci commencé jot à partir de tey ñu achalé na ko fii ba ajjuma bii di ñëw alors beneen parti bi ñu bàyyi beneen semaine bi ñu tàmbaliwaat parce que même talaata bii di ñëw war nañ dajawaat ak moom def déjà évaluation wu semaine bi accord yi nga xam ne jot nañ ko ci am ndax effectivement partie bu ci nekk respecté na sa ensuite beneen semaine bële di ñëw aussi beneen partie bi fekk engagement yi nga xam ne waa SONAGED war nañ ko def loolu yaakaar nañ ne seen ministre dina leen ci jàppale dina leen ci accompagner ba ñu mën a def engagement yooyu bu ko defee beneen semaine bi it mu delluwaat fële ñu seetiwaat directeur u trésor mu wax ñu effectivement ci ni mu gën a gaawee nan la koy mën a pour fay ñu ko très rapidement pour situation bi delluwaat à la normale. mu nekkoon Boubacar euh, Diallo doon wax ci turu boroom camion mbalit yi wax ci dem beeg dikk bi ak jafe-jafe yoo xam te ne kafri ni jël Sénégal dem dikk ñu ngi koy jànkonteel li ko waral mooy màggetaay bus yi euh, ya fay dem rax si dolli tamit euh, ñàkku clim ci bus yi ak yeneen i jafe-jafe tax sax ñu ngi gis ne ñoom waa Dakar dem dikk jox ñu leen gëdd moo tax ñuy doxalee noonu ak ñoom ñaawlu nañ ko bu baax a baax. ndeew bi bus yu màgget lool climatiseur yu panne amit ay panne technique moom lañ nemmeeku jamono ji ci bus Sénégal dem dikk yi nga xamante ni nag ñoom ñooy daw diggante dakaar ak Kaffrine li mel waral muy def ay waxtu yu bari ci yoon wi. xale bu góor bi ay atam wara a toll ci fanweer di ñu nëbbu turam takk ay écouteur kanam gi jaxasoo lool di ñu xamal ni li ñàkk jox cër askan wi nga xamante ni ñoo yeewoo ci ndukumaan la. mais bu dee tamit seen bus yi dafa wala dara genre euh, waroon nañ ko xool avant muy quitter Dakar moom moom loolu mooy yoon mais waruñu bàyyi ba ñëw ba si yoon tamit euh, di taadee nit ñi si zéro tamit dinañu xaw a impacté tuuti tamit quoi si moom it du guleet mu am yile jafe-jafe ci bile bus. huit ba léegi waroon nañoo wax bus bu bees quoi xam nga lii dafa métti. war a compter nii quinze heures. métti na quoi. bile jafe-jafe nag nekk lu naqari lool askan wi nga xamante ñoom ñoo yeewoo ci Kaffrine ba tax nag loolee ngir ñu wutal leen bus bu baax ca na mu gën a gaawee Ndeye Awa Beye Kaffrine rajo Futurs Médias Ndeye Awa Beye ci mbir moom nag RFM jëm nag ci jokkoo kilifa yu Dakar dem dikk waaye mbir yi ba fi antuwul des ba léegi ci wàllum dem dikk bi ak nag bateau Aline Sitoé Diatta bu yàgg ba léegi mu taxaw premier ministre sax bi mu demee ci ne di yàggatul dara bato yi dinañ tàmbaliwaat di daw waaye ba léegi furaas euh, dara sottiwul waral sax ba ñu nga xamante ne ñooy waa Ziguinchor rawatina ñi euh, opérateur économique yi di koy naqaru Diatta Koumassa Niane Faye mu taxaw première er juin ci manifestation yi ba topp Aline Sitoé Diatta boobuk léegi dawut Dakar Ziguinchor comme comme région bi ak di ci loxo Mame Biram Ndiaye opérateur économique ya fa nekk jafe-jafe yi ci boppam foo ko natt rek weesu na production fruit yi nga xam fi nekk muy madd ay ditax ak mango yëpp ren yëpp a yàqu parce que bateau bi nekk na loo xam ne euh, aubaine la woon pour région ñu xëy a xëy arrêté ko joxuñu benn dara lu leer dina tax njëg yu yokk ñu lay fayeeku ça fait nga xam ne transport maritime actuellement tout est fait à Ziguinchor. techniquement kii di Xavier Diatta doonoon initiateur pétition bi bëggoon bato bi reprendre duut ne tey la bato bi di reprendre service xamoon na ne loolee mënta nekk ndax am na ay mbir yoo xamante ne moo wax a jiitu ba noppi. même président de la république bu ko bëggoon wala premier ministre bu ko bëggoon ligne bi mënul tàmbale léegi boo duggee ci fleuve Casamance dafa am ay bouées de sauvetage les bouées yooyu ñuy guider bato yi pour ñu mën a naviguer ci fleuve bi bouées yooyu yu bëre dëñ nañu bu doo mën a jël bateau nga ne ko mu dem noonu à léegi mu dem ba kii c'est sûr que dina am problème. motif bi nguur gi joxe convaincre benn yoon Mame Birame Ndiaye. on n'est pas convaincu parce qu'on n'a pas des motifs on n'a pas des explications. c'est-à-dire que nag problème de sécurité nationale dañ ko mettre dans la rue. mais y a des responsables qui sont là yoo xam ne mën nañu toog ñu wax leen lii la demee même suñu waxu daal yëpp sax ñu junj ko mais problème de sécurité rek dem taxaw fële. Xavier Diatta li mu gis mooy mbirub Kosama yi dañ ko war a régler ba noppi. c'est que état cassé monopole bu ñu jox Kosama parce que Kosama rek moo am dogal. pour mu mun a jógee teg bateau bu jógee Dakar dem Ziguinchor il faut ñu casser loolu am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi fi am nañu ay jumtukaay loo xamante ne kii ñu ñu leen mën a permettre ñu exploiter ligne boobu. njiitub jëwriñ yi ba mu amalee tournée économique ca Ziguinchor la waxoon gouverneur bu région bi na tegandi ba nu mu gën a gaaw ab commission de sécurité ngir ñu teg lu dëgër ci loxo nguur gi ba pato bi tàmbaliwaat di daw. tey euh, ba Thiès foofu nag mécanicien yaa ak yeneen ouvrier ya fa nekk di naqarlu anam yi ñuy liggéeyee jafe-jafe yu tar ñu ngi koy jànkonteel ñàkk assurance vie naka naka tam euh, ne mutuelle de santé yi bëgg nañ ñu dugaleen ci ndaxte li ñuy dund metti na lool bëgg naan daal tamit eh, kilifa yi daal di leen di wëral ay bërëb yoo xam te ne eh, daañu fa mën a liggéey ak ci seen teeyaayu bakken ñoom nañu nag eh, fësal ko gannaaw ba daan am ndaje ba daan amal foofu la ci diwaanu Thiès te woon na fa Cheikh Anta Diop. ñii ñuy duppee ay artisan ñu yëngu ci wàllu yenn xeetu ci di ay mécanicien ay tôlier ay peintre daje woon fii ci Thiès yëkkati seen kàddu di fësal jafe-jafe yi nga xamante ne ouvrier yi. am nañu ko. ouvrier képp koo xam xam na ci secteur informel te bu ñuy faju dañuy am problème te ouvrier journée la am ñu bëgg ay assurance de vie yoo xam dañ ñuy accompagner. sonn nañu ànd sonn nañu. parce que da jël oto bu mën a ñëw dépanner ñu sàcc peso yi wala ñu sàcc moteur bi nga am problème problème yoo xam doo mën a fay. loolu ñàkk jàpp ne rek moo waral loolu. ñoom ñii de nee nañu am nañu beneen njàmbat bu leen gën a yitteel jamono yi seen nekkin metti na lool ndaxte amuñu ay bërëb yu ñuy liggéey ba tax ñu ngi sàkk ci kilifa yi surtout mbuurkaat bi nga xamante ne njiitu réew mi moo ko joxe woon ñoom it ñu am ci wàll ngir ñu mën faa yóbbu ouvrier yi ñu fay liggéey Abdoulaye Dieng moom moo jiite kuréel gi di cercle des ouvriers bu Thiès. cité des enseignants n'est-ce pas dégg ngeen ko. waaw police. kan moo mës hectares yoo xamante ni ñu mënaguñ cee jot. ci biir mbootaay bi mécanicien yaa ngi si peintre yaa ngi si tourier yaa ngi si électricien yaa ngi si menuisier bois yaa ngi si ferrailleur yaa ngi si maçon yaa ngi si. artisan yooyu ñooy si mbedd yi situation yi bokk ci kuréel gi di ay ouvrier ñoom nee nañ dafa mel ni nguur gi da leen a fàtte ba tax ñu bëgg kilifa yi am taxawaay ceesu leen ndaxte nee nañu mbaam gàtt na de waaye ci jur gi la bokk RFM Thiès Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop euh, poussière euh, démb ba léegi ñu nemmeeku ci biir réew mi di poussière boo xam ne nag euh, nee nañ dafay wéy ba suba ci àllarba ji bu ñu sukkandikoo ci waa météo dañ ci déglu leeral yu Mor Kébé monsieur météo ci jokkoom ak Boubacar Dieng. depuis démb ñu ngi nemmeeku woon pënd bu bëree bëri. Euh, si si réew mi pënd boobu nag presque mi ngi gënoon a bëree si bët gànnaar réew mi ak euh, diggu diggu réew mi loolu nag li ko waraloon mooy boo demee si désert bi rawatina si Mauritanie foofu dañ fa amoon ngelaw lu tar ngelaw loolu nag moom moo yëkkati woon euh, pënd bi daal di koy indi ba si fii si Sénégal donc loo xam ne dañ koy faral di nemmeeku la nag si période yi ñu nekk mooy période diggante décembre ba ba ba mars li nga xam moom mooy période de poussière si nii si si Sénégal donc si si loolu noonu ñun ak euh, direction bi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy saytu li jëm si qualité de l'air bi ñun dañu euh, bokkoon daal di def benn bulletin publié woon benn bulletin d'alerte te si bulletin boobu xamal nañ ne woon poussière bi presque dina fi nekk fii ba mercredi. maintenant nag bu si ginnaaw loolu bu demee ba am ay yenn soppeeku yu si am dinañ publier waat yeneen bulletin yoo xam ne dinañ ko euh, def si suñu xarala yi. RFM bitim réew. xibaaru bitim réew ana Rochelle lañ ci àndal soxna ñu ngi lay ñu ngi lay fay bu baax a baax xaaj Ndiogu Dieng. dañ koy tàmbali ak ginne foofu nag militaire ya ngànk nguur ga xam na ne tas nañ gouvernement ba. Euh, démb lañ ko daal di euh, xamle kii di euh, porte parole kon régime bi moom moo daal di yëkkati yu les kàddu waaye nag amul benn leeral yu ñu andi ci li waral ñu daal di tas gouvernement bi amul tamit app boo xamante ne joxe nañ ko ngir daal di taxawalaat gouvernement bu bees foofee ca Guinée leer leeral yi Oumou Amara Camara di secrétaire général bu présidence def na ab déclaration démb ci ab vidéo boo xamante ni dañ ko enregistré ba noppi door koo teg ci xarala yu yees yi mu daal ci xam leen ni ñi nga xamante ni ñoo di njiitu militaires yi ñoom rek ñoom ñoo mën a taxawal gouvernement bi ba fi putsch yi nekkee ci atum ba léegi Guinée mi ngi ci loxo ñi nga xamante ni ñoo di takk der yi ay waxtaan nag jot nañ ko amal ci diggante ñi nga xamante ni ñoo di njiitu militaire yi ak ñi nga xamante ni ñoo di instance yu CEDEAO yi nga xamante ni ñoom ñoo taxaw engagé wu ngir rek ñii di putschiste yi amal ay élection tey tamit taxawal ab gouvernement bu ñoŋ benn accord nag amoon nañ ko ci octobre 2022 ngir rek fixé woon dele transition bi ginnaaw ñaar fukki weer ak ñeent ngir rek amal ab régime civil ak jaxasoo bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci réew mi ñii di directeur cabinet yeeg secrétaire généraux yi ak adjoint yi ñoom nag ñoo teg loxo réew ma jamono yi ba ñuy taxawal ab gouvernement bu bees administration bi nga xamante ni mi ngi doon dox ba léegi amul dara loo xamante ni nemmeeku nañ ko ci li ci soppeeku du dul tabb poste premier ministre bi di Bernard Goumou ci place ki nga xamante ni moo di Mouhamed yi ci juillet atum 2022 gouvernement bu yees bi nag am na fukki weer ngir rek mën a taxawal ay élection ba mën a joxe li nga xamante ni moo di réew mi ñi nga xamante ni ñoo di civil yi ci ni ko CEDEAO bëggee situation bi nag ca Guinée mu ngay gën di tàng te lu ni mel nag dalul xel tey tamit nekkul loo xamante ni dina gaaw soppi nga xamante ni moo di système ba fa nekk jamono yi. oui euh, ana dem Niger Niger nag fas yéene euh, jox euh, gasoil réew yu Mali Burkina Faso ak Tchad. mu di xibaar bi jip fële ca Niamey capitalu Niger kon gannaaw ab déggoo bi nga xam ne ministre yi ñu denk wàllu énergie yu réew yooyu lee daal di xaatim foofule ca réew Niger bu ñu sukkandikoo nag ci ministre malien bi ñu dénk wàllu énergie déggoo boobu dina mën jàppale réew Mali bu. baax a baax ci jafe-jafe euh, courant yi nga xam ne euh, moom lay euh, jànkonteel mu di xibaar boo xamante ne nag doomu Mali yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñenn ñi jàpp ne dina mën a tax kon dëgg-dëgg Mali génn ci délestage yu métti yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ay at a ngi ni waaye nag ci gis-gisu yeneen doomu Mali li nga déggo bi kon du mën a tax ñu mën a joge ci coupure d'électricité yooyu le ñu dellusiwaat kon ci euh, signature euh, accord boobu diggante kon euh, réew Mali Burkina Niger waaye itam Tchad ak Salimata Aw protocole d'accord boobu ñi ko xaatim ñoom ñooy Mali ki Burkina Niger wante itam Tchad ci document bi nag dañ cee bind ni Niger dafa nar a jox gasoil ñetti dëkk yooyu lay yokk ci itam Togo niñ ko nar a doxee nag dañuy toog waxtaane ko bur xool naka la ñuy dëgmale projet boobu boobule jëwrinu dëkk yooyu te ñu dénk leen wàllum énergie dañoo teg ay recommandations lu jëm ci xoolaat projet yi nga xamante ni moom la yu ni mel concerné wante itam boole ci Togo ak Tchad ni nga xamante ni noonu la taxawee projet bi nga xamante ni nag ñu ngi koy nas ci biir réew mi ndajeek ñàmme bi dafa nar dafa nar a taxawaat beneen xaatim boo xamante ni moom mooy ajowu ci Mali Burkina Niger Tchad ak naka nañ ci boole toggoo ndax mu gis ci boppam daaneel ak Italie euh, ana foofa ñett doomu Égypte lañ fa àttee dal leen di tuumaal euh, ci fàttuk benn euh, chercheur benn gëstukat bu Italie. mu ngi doon wuyoo ci turu julio Regeni ñeenti doomu Égypte yooyu lee nekkoon kon ay kilifa ci service de sécurité yu Égypte ñu ngi leen di àtteewaat kon li ko dalee talaata ji ci kanam tribunal bu Rome lu leen di tuumal moo di dañoo daal di kidnappé. torturé waaye itam faat euh, italien boobee euh, di euh, kon Giulio Regeni ca Caire atum 2016 la yëf yi amee waaye nag kilifa yu Égypte ñoom ñu ngi weddi tuumal yooyu le ñu ne étudiants yi ay sàcc ñoom ñoo ko daal di faat. jaajëf xibaaru tàggat yaram Youssouf ba lañ ci àndal Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay laaj Ndiogu di nuyu ñëpp. dañ koy tàmbaleeg euh, coupe du monde bi soccer footballu tefes Sénégal ak Japon euh, di daje tey jii euh, pour nag qualifier quart de finale. 15h30 lay doon ñaari sélection yi dajewoon nañu ci coupe du monde bi passé ci demi-finale. waa Japon ñoom ñoo éliminé woon euh, Sénégal ba tax na gaynde yi bi yoon euh, bëgg kon def lépp ngir gagné match bi su ko defee ñu daal di dem ci quart de finale yi ñu dem ca Dubaay fekk fa solo cam ndam li ñu amoon ci kaw Colombie gaynde ak bittu sëkk yu Sénégal xam nañ bu baax faaw ñu defaat beneen jéego bu ñu bëggee àgg ci deuxième tour bi Mamour Diagne di ko firndeel waaw comme final la parce que comme ñu ñëpp ku si gagné da ngay euh, ñu concentré wu dañu éliminé woon bi passé comme ñu mën na tey ji dañee match de poule donc match boo xamante ne franchement dem ba jeex la quand même. voilà man mii foofu football ma dem woon boobu noonu donc tey dama koy assister donc damay mel ni comme final laay football. voilà euh, surtout loolu tamit euh, dina ma gën a yokk tamit quoi. ka ñiy dajeel tey jii nag xam nañ ko bu baax ne vice champion du monde la di Japon mi nga xamante ni moo éliminé woon Sénégal ci demi-finale daanoon ko juróom ci ñaar ci coupe du monde gi weesu loolu nag tax jongante gile nara nekk lu metti bu ñu sukkandikoo ci Babacar Fall. waaw éliminé woon nañu coupe du monde bi passé ah, boobu fekk nañu am absent yu bari mais alhamdulilah bi équipe bi complet na kii donc moo manqué Seydina Gadiaga ah moom blessure moo tax kon euh, dañuy entamer match bi euh, sereinement pour mën nañ ko considérer tamit comme huitième de finale la parce que gagné yooyu yaay passé en quart de finale kon dinañ def suñu kéemtu laay kàttan pour mën a génn ci match bi. bu fekkee cadre yi xam nañ bu baax li leen di xaar ci googu lay jogante joueur yu yees yi doog a amal mondial la ñoom desuñu ci ginnaaw ku ci mel ni Seydina Issa Lay Sène. yaa nga ni huitième de man finale sax que ñun mën nañ ni la lay doon. te Japon seen équipe bi mu toll nii dafa baax koi dafa baax quoi mais ñun instant craindre benn équipe mais dinañ leen respecter quoi quand même suñuy adversaire la affaire yooyu noonu quoi di ñaan yàlla mu may ñu ndam si kawam quoi incha allah. engagement ak détermination ngir mën a gagné loolu la gaynde ak Sénégal yi takk téere mu ne woon Soda Thiam fii ci Dubaï ngir radio Futur Media. Sénégal Japon kon 15 h ginnaaw Sénégal bi mu amee défaite ci matcham bu njëkk bi équipe yi gagné ñaareelu matcham digganteem ak Colombie wane beneen xar kanam ba tax na kon entraîneur bu Gorée Beach Soccer jàpp ni équipe bu Sénégal mën na kon daan équipe bu Japon bi Mamadou Lamine Thioy lay wuyoo ñu déglu ko. boo xoolee sunu match bi ñu jëm nii dafa nekk match bu metti waaw amee gos yi euh, conscient nañ daal ci match bi. Euh, boo xoolee Japon adversaire la boo xamante ne adversaire bu ñu sonal la ci wàllu bi beach soccer tey match qualification la te qualification bon da ngay dem pour gagner wala nga génn ci compétition bi mais ñoom xam nañ li leen war ak li ñu war a def ci match bi yëpp. boo xoolee match bi passé contre Colombie euh, def nañ match boo xam match bu bu la match bu physique. boo xoolee tactiquement ils étaient en place mooy euh, tey bi passé dañoo ñëw jouer ak 1 2 1 1 pour mën a génn ci match bi ndax doo tubaab yi seen góol yi presque ñoom ñooy bit choqueur quoi ñoom ñooy football kat léegi ñun dañoo am attaquant boo xam ne dafay empêché góol mu football foofu ci kaw milieu terrain bi ki nga xamante ne terrain la ko tamit day def euh, genre ussi classe tiroir lay nekk quoi moom su ko empêché su passé keneen kooku mooy génn dem tëji ji moom mu dugaat ci milieu terrain en tout cas daal grosso modo mooy euh, match tey bi match buy métti lay nekk mais booyi daal la am nañ euh, ñetteelu ndamam Colombie la daan ñeenti bal ci dara jamono yi euh, équipe bu euh, Portugal moo mëne Oman benn baax ci dara 17h euh, Mexique mooy daje ak Brésil. football ba léegi waaye bi yoon football ci gazon yi ak huitième de finale ligue européenne des champions di wéy. di nga ko wéyal kon 20h incha allah ci la ñaari match yi di am italien yu Inter Milan ñoo daje ak espagnol yu Atlético Madrid PSV PSV Eindhoven kon équipe bu Hollande ñoom ñoo daje ak Borussia Dortmund di waa Allemagne yépp incha allah bu 20h jotee lay doon. Jeux olympiques Paris 2024 canoë kayak dina am ñaari ndaw foofa. kii ji mujj qualifié di Yves Boris euh, moom nag euh, jël benn ticket bi ñu tegoon euh, ngir kon ñi yëngu ci wàllum canoë kayak nekk góor ci Afrique laata moom Combesek moo gañ jëloon kon benn ticket ci beneen ticket ci jigéen ñi pour Paris 2024 di guléet kon Sénégal di am ñaar ñu ko teewal ci Jeux olympiques ci disipline bi. Euh, DTN bi directeur technique national bu fédération sénégalaise bu canoë kayak di ko rafetlu Massamba Fall lay wuyoo. te mbégte la boo amee ñaari athlètes yi nga xam ni qualifié nañu aux Jeux olympiques de Paris deux mille vingt quatre euh, la si si si fédération sénégalaise de canoë euh, li si des nag moo di nan la ñooy def ba ba teew foofu ak ay conditions yu baax et ñu am préparation boo xam ne préparation yu ci ayib la waaw ñoo ngi si ndaxte déjà. boo xoolee Ibolis war na participer ay ranking du mois de mois prochain e que Scombe aussi war na participer au championnat du monde ak coupe du monde donc mu nekk mu nekk li nga xam ni donc euh, ñoo leen di suivre bu baax a baax donc euh, Sénégal fédération di continuer rek dérouler programme am comme ni mu ko def woon ba ñu egsi fii donc incha allah donc bu ñu bu ñu continuer donc préparation je crois que mën nañu am ndam. jaajëf euh, El Hadj Ndiogou fii la ñuy yem ci xibaar tëgg ci. jaajëf yow tamit Youssouf. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant soumari.com Kenkeri le grand jaxaay ñoo leen ni may li ci yéene kaay yi. li ci yéene yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf ñi ñu tëjoon ci kaso yi te libéré leen bu yàggul bari na journal yu xëy ci ñoom yëral xët mu njëkk sur soi ngi ñuy wax ne li ñu libéré ci ay détenu politique alxemes ak léegi ci diggante Pikine Ndakaaru ak Géejawaay toll nañu exactement ci ñoom am na ci ñoo xam ne liberté provisoire moo leen génne ci kaso bi am ci ñoo xam ne lañ leen doon na génn wax li waral libération yi wax lan moo ci nar topp waxit li tax ñu dakkal libération yi journal Les Échos moom li ko jaaxal ba mu xëy di ko waxtaane ci xëtamu njëkk mooy ni procureur bi doxalee ba tax ñi newoon ci kaso bi ñu bari ci ñoom ñu féexal leen nee nañ it ci ni yoon doxalee ci mbir yi am nay magistrat ci àndul ci ñu war a libéré ba tey yéenekaay bi nee nañu am na ci ñoo xam ne génn ñu ndax seenu libération procureur bi da cee dëgg tànkam jàmm ci réew mi gifal dënni moo waral ñu libéré ay nit yu newoon ndungu seen bi mi ngi ñuy xamal ne li yi leen libéré bari na procureur bi xam na it ne ordonnance de mise liberté gi génne gaañi ci kaso bi juge d'instruction yi ñoo ko signé ci kaw loolu le quotidien mi ngi ñuy xibaar yi ne ministre de la justice maître Aïssata Tall Sall war naa génn tey ji ci ngoon leeral li ci am dëgg-dëgg ci ñu ñu libéré le quotidien nee nañu am na ci koo xam ne moom waxul dara ndax ab liberté provisoire la doon sàkku te le mars la ko doon séntu ñu séenaat coow li ci xët mu njëkk sunal le témoin ci détenu yu ci kaso bi ci li tegul fenn nëbbu leen jant bi ay weeri weer ginnaaw bi ñu libéré leen ci lu kenn xamul nu mu demee ñu dem ci l'observateur moom it détenu yu ñu libéré bu yàggul ñoom la jagleel xëtamu njëkk bil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne nee nañu bëgg a dekki risque bi moo waral ñu libéré ay détenus yu bari yu ne woon ci kaso bi waaye bu ñu deful ndànk saafara dana jur jàngoro ndax ci député yuy libéré gis nañu ci ñoo xam ne ba ñu génnee ci buntu kaso ba fa la ñu delloo buum ca ba fa la ñu tàmbalee yëkkati ay kàddu yu wex xàtt ba mel ne mi ne ñu ci yéenekaay bi loole moom Ousmane Sonko rek moo ko mën dakkal mooy ki leen war su génnee ci kaso bi kaso ba ci Ziguinchor libération mi ñuy wax ne jàmm xewu fa ni détenus yu fa nekk am na ëpp juróom-ñaar fukk ci ñoom di 70 détenus nekk ci grève de faim bi nañu ay jigéen a nga ci ay mineur a nga ci ràññee nañu ci kii di Amadou Sané mooy maire bu Diakounda newoon responsable ci parti Pastef ba woon moom it libération nee ba dañuy wax ne moom borom Sénégal nouveau moo génnee boppam ci yëf yi journal Tribune na ko coowal double nationalité kay moo ci génne moo tax ba mu tekki ay jaajam Vox Populi nañu docteur Rose Wardini bàyyi bàyyi na ba nuppi nag di sàkku ñu organiser élection présidentielle yi avant le avril Walf Quotidien moom am lu mu seetlu ci mbiri ak fi ñu toll jamono ji seetlu gi mooy benn candidat bu jigéen cote moo des ci candidat yi war bokk ci élection ne Karim Wade mi ay mbokkam di séntu ci réew mi bu yàgg ba léegi na ab date ngir war ñibbisi date bi kañ la public yéen kaay waxuñu ko li mu ñu wax daal mooy fii fan doomi lay Wade ji dinañ ko fi gis ñu gis ci xët mu njëkk l'Observateur mbir mu doy waar mu xewee ca kees benn waay bu ñu naan oo war a am lu toll ci juróom fukki at moo doon doxaan jabari jàmbur dem kër femme bi di ñibbi fàtte fa ab kabam dellu di ko jëli ba mu yeggee fekk fa a bi Kakila. Direction de la santé mère-enfant. sumari.com. Kenkeri le grand jaxaay ñoo leen doon may li ci yéene kaay yi. xibaar yi mbokk yi ñu ñuy yegseeg yéen léegi ci gis-gis tey nag li ñuy waxtaanee mooy fajal sa bopp gi ñu nemmeeku ci askan wi li ci mujj awee amee ci Ziguinchor démb benn waaye bu ñu jàpp ne sàcc la daal di koy dóor ba mu njaare fa faatu ngir waxtaan li ni ma nekk daañu ci ànd ak Alassane Seck Alassane Seck di jiitu Ligue sénégalaise des droits humains LSDH di kuréel gi seetu ak ak yelleefu doomu aadama monsieur Seck ñu ngi lay niiw jërëjëf daa ñaan tam ci waxtaan wi ak docteur Souleymane Lo docteur Souleymane Lo di sociologue nekk enseignant chercheur docteur Lo ñu ngi lay nuyu. oui sëñ Ndiogou Diène maa ngi lay ziar bu baax di la delloo nuyu. jërëjëf euh, dañuy tàmbale ak Alassane Seck Alassane euh, gis nañu ne léegi nit ñi lu bëri ñooy fajal seen bopp bu yàggul dara sax ne gis nañ ko ca caaro yi benn waay bu ne dafa faat nit euh, askan wi daal di koy dóor ba moom tamit mu daal di faatu Ziguinchor bu ci mujj démb naka nga jàngatee xewin boobu nit ñi di fajal seen bopp. waaw xanaa di ko naqaru rek El Hadj Ndiogou fa nekk Sénégal fi nii depuis mel ne Sénégal amatul kilifa amatul autorité euh, yu am rigueur am flag fayda di yore réew mi te ko ci yoon naan nit ñi dañ di seetlu loolu ba pare nag suñu dëkk bi dafa jaxasoo fi mu nekk nii lan nga ñox picc ko mu am ku nekk yaa moom sa bopp ku nekk dangay def lu la neex moo am Sénégal malheureusement ñi ci ñàkk seen bakkan yooyu mooy ñi perte mais dafa jot ci mu nekk ci réew mi état bi jaar en charge réew mi téye ko téye fulla ak état bu am flag fayda bañ a am parparloo bañ a am impunité def loo xam ne tegoo ko ci yoon dañ la war a teg ci yoon hmm. mu am fa état d'âme mu am justice bu am rigueur hmm. am fulla ak fayda loolu moo manqué Sénégal depuis quelques années malheureusement hmm. justement justice moo war a lijjanti mbir yooyu moo xam sàcc la ku faat nit ak yooyu justice lañ koy jébbal mu def ci liggéeyam est-ce que euh, loolu dina ne xëy na euh, askan wi dafa wóolatul justice wala lan la bon dafa naa Sénégal moo nekk di benn instabilité chronique boo am sur le plan politique d'abord ensuite mu social loolu moo tax léegi dana soxla état bu am stabilité bu dëgër bu am fulla bu am autorité loolu voilà moom autorité la moo ñàkk Sénégal boo ku nekk da ngay def lu la neex dara du la ci fekk justice bi mu ngi def liggéeyam naam mais dafa des lu bare bare bari ci rigueur bi na am pour appliquer les décisions de justice loolu mooy li li jiitu ensuite ñu mën a teg ci yoon wi ñëpp ñu ci war a nekk ba ñu am parparloo ba ñu am kumba am ndey amul kumba amul ndey loolu daal njóobu moo nekk Sénégal fi mu toll nii à la croisée des en deux mille vingt quatre ñaan ñaan yàlla daal euh, régime bi di ñëw après élection présidentielle di ñëw ñu am régime boo xam ne daal am na fula reprendre les choses en main loolu moo amul Sénégal fi mu nekk nii. kon pour yow euh, nguur gi la état bi la mooy responsable situation bi. état bi mooy responsable mais nag population yi aussi am nañ ci wàllu réeré parce que population yi foo ñu yar leen xale yi dañu yaroo la plupart en tout cas dañu am bokk wala bokk dañu jaxasoo xamatuñu fu ñuy dem. ndax léegi lu xew rek ñoom ñu jëlal ko seen bopp réglal ku seen bopp loolu amul ci benn réew ci àddina mhm. donc loolu daal moom manqué d'abord état bi politique bi état du droit appliqué toutes les rigueurs de la justice ak lu mu laaj mais surtout nañu yar sensibiliser population yi loolu aussi lu am solo la lañ yóbbu. Hmm, jërëjëf Alassane sekk nañ ñëwaat ak yow docteur Souleymane Lo yow euh, ba njàngat ngay am ci mbir mi lu tax nit ñi wóolootuñu justice parce que tamit ku jàpp sàcc da ko war a yóbbu police ñi lijjanti ko mais ñenn ñi dañuy wax ne euh, même sàcc sax boo ko yóbboo day dem police après ñaari fan ñetti fan ñu bàyyi ko lan moo tax euh, nit ñi wóolootuñu yoon bàyyi ko mu def liggéeyam. waaw waaw je pense que wax nga ko ah bokk na ci li nga xamante ni justice bi maanaam. Euh, sunu tribunaux yi dañu gis faral di seetlu ni à chaque fois nit ki su fekkee ne da nga ko jàpp yóbbu ko kaso tamit euh, boo xëyee ñaari fan ñetti fan nga dajawaat ak moom ci mbedd mi donc par conséquent nit ñi dañ mën ba amatuñ ci kóolute ci justice maanaam euh, nekkatut koo xamante ni tey war na mën nañ ci séentu mu fajal leen seen i seen i naqar seen mer ak seen i jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy dund jëm ci yu ni mel. Euh, loolu nag bokk na ci aussi en général tamit da ngay gis bon ci compréhension population yi dañ naan la euh, boo jàppee sàcc yóbbu ko kaso tamit wala police dañ naan la ndax am nga loo ko dundalee donc euh, par conséquent dañ lay won ni yow mi ko fu yóbbu yaa ko war a jël en charge ba tax na nit ñi dañ naan coono la ci nga jàpp sàcc du ko jébbal donc yoon boo ko defee tamit yaa ci mujj loru. mais en tout état de cause état de droit lañ nekk droit justice am sañ-sañu def liggéeyam ñoo dañ ko war a bàyyi moom. E, évidemment mais nag bu ñu demee ba gis ni dañoo def défaillance dafa am ci seen côté nga xamante ni fajatuñ li taxoon donc ñu nekk fii nit ñi dem ba nga xamante ni mbir mi dafay gën a jéggi dayo dafay mel ni sax da ngay gis ni euh, justice bi euh, ñoom ñooy ndeyu seexu maanaam ñooy ñooy ñooy ndeyu seexu euh, sàcc yi wala yi nga xamante ni yenn delenkaan yi la ba tax na nit ñi dañoo jëlal seen bopp nag seen delluwaat ca cosaan cosaan ma nga xamante ni noonu la aada yu bëri daan jëfandikoo jëfandikoo su fekkee ni xeetu sàcc amoon na mën nañ ci citer ay xeet yu bari yoo xamante ni amoon nañ mode boo xamante ni bu sàcc amee noonu dañ koy régler ba nga xamante ni kenn dootu fa dox euh, boo jëlee lébu yi par exemple boo sàccoon tey dañ naan yoof wala li ko wër bu nit xalaatu faa dem di sàcc ndax lan boo fa defee dañ lay def ci mbuus tàbbal la géej hmm. donc ay méthode yoo xamante ni du siège la bu ko jëlee dañuy tax ba képp koo xamante ni sa xel xalaatoon na ko Euh, dajoon na ko donc di nga ko moytandiku ba doo ca jaar donc hmm. loolu moo waral euh, tey jii jëfin yu ni mel tamit dañ ko war a weesu àdduna lay dox tamit te ah. état de droit lañ nekk tamit ñëpp a sañ-sañ ci euh, ak yelleef évidemment état de droit am na hmm. donc nit ki wat fajal sa bopp mais li tax nit di fajal sa bopp mais ñàkk pexe hmm. ñàkk pexe nag pexe fay sës maanaam bu fekkoon justice moo ngi dox ni mu war a doxee bu ñu la jàppee yóbbu la ci yoon yoon jëflanteeg yow ni mu war a jëflanteel Euh, daan la li mu la war a daan bu boobaa donc ñi nga xamante ni dañ leen di sàcc wala ñi nga xamante ni dañ leen di lor euh, dañ leen di tooñ bu boobaa day seen xol dina sedd wala dinañ am donc fu ñu jafandiku waaye dañoo gis ni loolu dafa tumburanke tumburanke na bu baax a baax a baax ba nga xamante ni tey euh, bu dul loolu tamit en général délai bi da ngay jàpp nit yóbbu ko yoon ci mbirum sàcc wala mbirum crime mu def ñaari at kenn du ko ate nga xëy gis ñu génne ko yooyu yëpp tamit dafa nekk loo xamante ni jàngoro yi nga xamante ni mooy moo tax sa saafara du am ci lu ni mel euh, nit ñi di doxee loolu maanaam dañuy gis bu ñu gisee sàcc ñun lañ ko fajal suñu bopp su ko defee bu ëllëgee bu mbooloo fajee euh, dina xaw néew ñu jàpp mbooloo mën leen a tëj donc loolu aussi ay stratégie lañ en hmm. général dañ koy def par par par par par mbooloo mais bu ñu ko defee noonu tamit duñ ci génn ku nekk fajal boppam moom leneen lay jur parce que euh, ku faat nit ñu ay mbokkam tamit mën nañ ñëw faat mu daal di indi gëneen jaxasoo gëneen pëcc moom kay mën na jur fitna mm-hmm. mën na jur fitna bien sûr mën na jur fitna mais dañuy wan li tax loolu am rek maanaam ñàkk pexe la su pexee amoon bu fekkoon ni justice daal gëm naa ni moo ngi dox ni mu war a doxee ci réew mi euh, ci anam yu mel noonu surtout nga xamante ni tey ji amul ndey ji seex day euh, tëddee ndey ji seex ki am doole ki amul doole mm-hmm. ñëpp parce que fi dañuy xool ni tey ji bu hmm. fekkee ni borom doole moo am ku lañ sàccoon hmm. léegi tey ñu réglé ko waaye bu fekkee ne waya waya la koo xamante ni baadoola la moom la ñu tooñ moom la ñu sàcc en général dañuy faral di gis ni atteem euh, du demee noonu donc te population bi moo toll foo xamante ni dafa toll ci fippu te loolu nag moo tax état bi war a delluwaat ginnaaw xoolaat bu baax ci ni nga xamante ni noonu la ñuy doxalee justice hmm, ba ñu ba ñu mu bañ am ku mën am ndey ku ma amul ndey donc loolu amee ci dëkk rek dina indi donc safar yu mel. nañ ñëwaat ak yow docteur Souleymane Lo jeexal ak euh, Alassane Seck euh, monsieur Seck ci wall woowu yan pexe lañ war a teg ba nga xamante ne euh, citoyen yi daañu yem kenn du soxla fajal sa bopp waaye ku dem fa mbaxane doone benn lañuy bàyyi ñu faj ko. te ñëw loolu nekk na loo xam ne état bi dafa war a en charge mu nekk priorité pour di sensibiliser di xamal nit ñi seen droit ak seen devoir devoir surtout ñu mën a xam ni. amuloo fajal amoo droit fajal sa bopp il faut que ñëpp xam ko dañuy passé ci télévision yi tous les jours ay euh, ay euh, ay sketch wala ay euh, publicité di wax lii ak lee comme élection yi bi passé wala élection yi di ñëw fu ñu war jaar pour mën a sensibiliser population yi dañ ko war a commencé ci xam sa bopp xam sa devoir de citoyen bañ a defal sa bopp hmm. loolu moo jiitu ensuite population yi war a xamal seen bopp aussi ñun ONG yi am nañ ci devoir pour di liggéey di sensibiliser population dans les quartiers. dans les ASC ñu leen amu leen droit dóor nit. est-ce que yéen a koy def euh, liggéey boobu di <laughs> ñaax nit ñi bañ a fajal seen bopp bàyyi yoon fajal leen. ñu ngi koy def tout le temps mais xam ngeen duñu am moyens yi ñu war a am comme état bi ma amee ay moyens illimités am lu moyens yooyu di mën a façon systématique di ko def dans toutes les villes ak tous les quartiers nekk lu yomb nekk lu yomb ci ci ñun en tant que ONG locale. léegi man li ma am daal moom mooy nit ñi bu ñu am conscientisation bu leen jox ñu xam surtout xale yi. ni leen il faut ngeen res seen bopp ba pare comme li mu wax docteur loo c' est vrai que mënul justifier li muy wax parce que c' est très grave mënul justifier ñuy fajal sa bopp mais il faut que ñëpp xam ni euh, état moo am devoir de réguler population yi ci jàdd yoon ñu rappeler la yoon parce que xool ki ñu rey à tort Sénégal dafa enlevé peine de mort Sénégal état bi dafa dindi rey nit boo xam ne amoon na depuis les années soixante la amoon ba deux mille quatre lañ ko supprimé léegi état bi nangootul rey nit ak seen nit di rey moroomam surtout dara dañ ko tooñ wuy sàcc rek ñu jàppale dóor la ba nga dee kooku dafa nekk loo xam ne dafa war a am sanction exemplaire ko def dana war a enquête ba enquête bi dem ci cappaandaw ga ñu wax ko ñun ñëpp ñu xam ko di dorénavant dun nangoo kenn rey nit comme ça à tort ndax yow yaa fajal sa bopp te amu ci loolu nekk na loo xam ne nekk na naam yombul nax Sénégal fi ñu toll nii en deux mille vingt quatre mois de février bi ñu ca pëccëxoo ñun ñëpp dañuy dox sur la tête ne ñu war a Sénégal kooku moom docteur yi noonu si jàppale que psychologue yeeg psychiatre yi mais daal toll nañ foo xam ne daal euh, Sénégal dafa jaxasoo xam nañ dañ ñaan daal yàlla daal su élection yi passé ba amaat beneen prise en charge yi ci réew mi ku bees kuy ñëw président bi dina am fulla ak fayda pour régler lépp une fois pour toutes Mhm. jërëjëf Alassane Seck ñu lay sant di lay gërëm Alassane Seck di njiitu Ligue sénégalaise des droits humains LSDH docteur euh, Lo euh, ci mbir moomu yow euh, naka lañ leen mën a waxee ak askan wi ban discours lañ leen mën a yeewee ci nag ñu bàyyi lu ni mel maanaam mbirum fajal sa bopp. voilà juste rek rappeler ni justifié wu ma le nit ñi di jëfal seen bopp damay wone li tax. nit ñi di di di di ko def. Hmm. pas di ko justifier même su fekkee ni euh, kii na mais euh, lan mooy nekk maanaam saafara yi lan nag la ñu war a mën a ji bon man jàpp naa ni c'est vrai nit ñi du du question ni dañoo xamut wala dañoo déggut fi mu ne nii koo ci laaj xam ne ni boo jàppee sàcc wala euh, yu mel noonu nga joteeg nit da nga war a dem ak ci moom yoon loolu ñëpp xam nañ saa di que bu fekkoon loo xamante ni sa nit ñi dañoo xamut nii fan nga war a jaar mais dañoo tàyyi ci fi ñuy jaar. maanaam jaaruwaay boobu nag pour que loolu mën a dëñ dakk il faut que li ñuy wax la mesure de l'exemple il faut de la pédagogie de l'exemple du point de vue ci autorité yi maanaam ci justice ñu ni jàppoon nañ diw gis nañ nañ ko àttee te àttee woo xamante ni c'est satisfaisant ni ñi xam ni képp ku sàcc li yoon wax ci moom dogal nañ ko ci moom su ko nit ñi dee gis ci seen i bët buñ jàppetee nit yóbbu ko justice waaye su fekkee ne safaan bala nag comme moom la ñu constaté Euh, évidemment dañuy sonn rek waaye saa yu ñu lu mel ni amee dina jafe nit ñi ñu tàqale leen nag jëflan jëfal jëflanteeg seen bopp. jëfal seen bopp. mais dans le même temps tamit docteur. Euh, ki nga xam te ne moo def lu ñu mel euh, dóor nit par exemple ba mu faatu euh, yoon teg koy daan yu diis a diis ba nit ñi ñeneen ñi buñ ko gisee daañu du ñu ñemee def lu ñu mel loolu tamit c'est dissuasif. loolu ci bokk na ci pat bokk na ci mesure yi nga xamante ni buñ koy def dina dissuader. Hmm. nit ki donc di jëfal boppam cest à que bo yoon wone na ni. bu ñu la tooñee mënoo fajal sa bopp. Hmm. soo fajalee sa bopp da ngay wëlbatikuwaat également tooñ comme ñu la tooñee woon. Hmm. donc ñaari cas yooyu su fekkee ñoo koy doxalee ci tooñ ñu teg ko ci yoon. kii wëlbatiku ñu tooñ ko mu fay <clears throat> fay faj tooñam ñu jëlaat ko tegaat ko ci yoon dina tax ba évidemment ku si nekk ci li nga war a def nga xoolaat ko ba nga balaa jëf di am man jàpp naa ni si noonu la ñu mën a fexe ba saafara ko waaye sensibiliser wax nit ñi wax nañ ne xam nañ boo demoon ba ca gott ba àll ba. <clears throat> nit ñi xam nañ ni bu la nit tooñee wala nit sàcc wala nit rey sa doom da ko wala sa leneen da nga ko war a yóbbu yoon plutôt nga fajal sa bopp. Mhm. waaye yéen tamit euh, professeur euh, yéen euh, sociologue yi ak tamit psychologue yi est-ce que tamit amul liggéey bu ngeen ci war a def sensibiliser nit ñi ci ne loo mer mer mer war nañu mën a contenir seen mer bàyyi yoon def liggéey bi ba mu mat sëkk. waa waaw loolu moom bokk na ci matuwaay yi nga xamante ni ci doomu aadama la donc diine muy tradition nit ki su fekkee ni euh, yar nañ la jàngal nañ la lislaam sax dafa la jox ay conditions yoo xamante ni su fekkee ni na la fa am nga noo war a mën a euh, jëfandikook sa bopp ba doo def musiba wala doo wax loo xamante ni dina nekk jéeya donc yooyu yëpp euh, ci ci yar dafay am donc nit ki ñu jàngal ko tey maanaam jàngal ko nite nite nite nag donc ci situation la ko lay lay arrivé ci ci doomu aadama bi ba nga xamante ni su fekkee ni jëye am na wala situation am na mu xool naka lay def ba maitriser boppam ba du def safaan ba maanaam du utiliser xelam bala utiliser en tout cas yëg-yëgam parce que ñu ci bëri ci ñun ñu yëg la lañuy doxee société bi aussi dem na ba toll foo xamante ni euh, yëg-yëg bi moo ëpp xel mi ci li nga xamante ni noonu la ñuy jëflante si la ñuy doxee loolu nag wax dëgg yàlla wax nga dëgg donc il faudrait aussi que en encore une fois ma ni état moo am moyens pour gën ko mën a fësal Euh, ci kaw des fois nga gis waxtaan mel ni télé wala ay rajo da nga ci gis ñoo xamante ni ña war a wax du ñu wax wala nañuy waxee mën na indi donc safaan euh, ci jëfinu doomu adama yi ba tax na dafay mel ne euh, sabar gu tas donc yooyu yooyu aussi dafay faral di indi ay gàllankoor ci xalaatu doomu aadama yi ci seen i doxalin ba seen yëg-yëg mooy ëpp seen i xalaat ci jëf. Hmm. jërëjëf docteur Souleymane Lo. ñi lay sant di lay gërëm docteur lay mando di sociologue nekk tam enseignant chercheur dellu tam di gërëmaat bu baax Alassane Seck njiitu LSDH Ligue sénégalaise des droits humains mbokk yi mu nekkoon gis-gis ne woon tam xibaar yi El Hadj Ndiogou nekkoon ci micro bi sa mbay ci machine bi yu baax ci production ñuy gërëm bu baax Awa mbay chef d' édition ci kanam tuuti yëgle yi ak tàgge yi ak soxna Aminata Ndaw jaajëf ci ànd beeg RFM ñu yendoog jàmm.